les gens ne sont pas conscientisés maanaam dafa am lu bëri loo xam ne dañ ko war a jàngal d'abord sénégalais euh, éducation éducation à bas âge ndax loolu suñ la ko defee ci yow moom ngay dem ba magalé ba lépp contexte bu mënti ñëw rek di nga mëna évoluer ak moom mhm, di nga mëna a adapté wu ak mom mën na corona kay nañ def lu ñu lu ñu taga ñi si nombre tàncaloo dajaloo ñom ñëpp kay jaadu wala ñop kay ñu tas mag si benn yoon ñu def non doon wala dara amatu ci réew mi. bu fekkente ni client yi dañu taxaw wacc liggéey wu wacc wara ñibi seen kër am des difficultés pour am auto donc surcharge bi je pense que donc lu ñu gis la et que nit ñi ñu ngi koy def defuñu ko parce que dañu négliger maladie bi mais parce que c'est une actuellement, je peux dire que c'est comme si c'était une obligation parce que tu devais faire le tout pour les éviter et rentrer chez toi tranquillement, mais on ne peut pas le faire. C'est vrai que la pandémie, elle est là. Mais comme nous l'avons dit, si tu es une éducation n'importe quelle situation Nous devons adopter aussi lool comme par exemple ni ko olof di waxee fëkk du la pas ba na yëpp jeex na wala ñu tàncaloo boog ñu tekk mos léegi yëpp ñu xam ne feebar kon amatu fi xanaa. trois mois en arrière ñu ngi ko doon moytu di takk suñuy masque di laal gel alcoolique fu ñu toll mais léegi foo dem sax ñëpp bàyyeeku nañ parce que kenn respecté tul mesure barrière yi parce que pour man état moo moo wàññi lépp parce que bu ñu demee ba ne oto yi mun nañ surcharge euh, boîte yi mën na ubbi finalement da nga naan est-ce que sax feebar bi existé na woon. nombre bus bi mënuñoo satisfaire. Euh, demande population bi loolu moo tax muy am euh, ni ñu koy waxee entassement ci bir bus yi loolu tamit problème la bo xamni état daf ci wara juk mu supprimer certains transports en commun indi fi d'autres yo xamni ne ñoo di remplacer beaucoup plus adapté à notre situation. risque bu grave mu ngi ci parce que sax ñi ñi nangoti tak masque sax bëreetul parce que da ngay dugg di wax nit ne la fièvre bi amul wala euh, jeex nak affaire yoyu te même bu déssé ben cas sax pour man dañoo wara respecter mesure barrière yi ba kérok ñuy dégg ne jeex na ci réew bi feebar baa ngi ba tay mais tamit solution bi je pense que moy ñu jéem a kaari pour que nit ñi mëna am fuñ ñu mëna dem ñibi seen gër parce tamit liggéey ba wacc amo fo ak amo auto té obligé nga buruxlu pour bokk aussi mëna ñibi tranquillement lool la quoi